jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ci wasaare làmb di leen dalal di leen jaajëfal bu baax a baax tey jii nag ñoo ngi fii ci Pikine ah fekk si koo xamante ni xale la daa bokk ci làmb muy Alliance Baldé xanaa ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu wéel waxtaan wi Alliance Baldé nuyu naa la. waaw maa lay fay gannaaw boo ma sant yàlla jullu ci yeneen bi maa ngi sant sama ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di nuyu sama woosi la sëñ Abdou Bara Mbacke Fallou yàlla na yàlla yàlla yàlla guddal fanam defal ko jàmm defal Sénégal jàmm ju bari ci barke Serigne Touba defal ko jàmm defal ñu jàmm ñu ñëpp incha allahu rabbi euh, alliance Baldé carrière euh, naka la demee ak ñaata combat la am. alliance xale la juddu 1994 am 14 combats ak 6 défaites. waaw. Euh, combat yi ban moo la ci gën a neex sa combat yi. ma combat ak Sa Thiès moo ma ci gën a neex. dox mu gën laa neex. parce que bu may bëreeg moom tombe na mu nekk xale moom am tour tamit parce que comme Balla gay la doon àndal coow li bëri na. ba pare mu amoon ñu nga xam ne ñoo nekkoon suma écrit doon dégganteeg moom jëloon ay vidéo envoyé ko ko yàlla defoon mu jàpp ne làmb bu ñëwee rek day yomb yàlla def arbitre daa soufflé même pas cinq minutes mu dóor ko mu daanu. nga ko mu daanu ci combat bi. da nga koo da nga koo yéen woon nekk ci yow di ko envoyé ay vidéo wala. non yanu ko woon parce que xam nga lu tax yanu ma koon xam naa ne ñoom seen xel moo toll foofu mais man xam naa ne li nekk ci man nekkul ci moom maa ko ëpp fit te maa ko gën a ñeme metti moo tax bi arbitre soufflé ma dëggal sama bopp dóor ko mu daanu. mais loolu yow mën na de arbitre nga dóor ko mu daanu. non arbitre dañoo soufflé ñu xeex xam nga xeex ñaara koy def su ma la dóoree nga fay dañuy xeex mais bu ma la dóoree fayoo duñ xeex dama ko dóor mu fayu ma xam ne ñeme na xeex bi ma xeex ak dóor ko mu daanu. ok hmm. moo nekkoon sa ñaata combat. boobu moo nekkoon sama troisième combat sama trois victoire. ah ok mais yow da nga dugg si rek commencé tegle les yi. dama dugg dóor am trois kaw trois door mu daanu. dama dóor Sa Thiès mu daanu dóor Bébé Saka Dior mu daanu dóor dund mu daanu lépp géejawaay la. <laughs> mais loolu gaaw na de 3 combats 3 victoires 3 combats 3 KO. ñoom ñëpp dama leen dóor mu daanu géejawaay 16 laa fa teg buntu estat ñoom ñu ko wëree foofu yëpp maa leen xaar kenn moo ci des mi Papa Boy Djiné. loolu dinañ ci ñëw sa diggante yaak Paa Boy Djiné parce que coow li bari na sa diggante yaak mais euh, dafa mel ni am na koo xamante ne jot naa teggi 16 bi tegee ko nii. waaw muy dund. <laughs> parce que lu tax ma bëreeg dundu dama waroon bëri ak papa promoteur bi wax ak moom ba mu dee mais comme daan naa trois personnes léegi faaw ñu ut barrage teg ko ci diggante bi moo tax ñu indi woon dund proposé ma xaalis man tamit xam nga comme xale laa gëm naa sam bopp am naa. déet déet bu fi wax ay temps de piège temps de piège moom amu fi. temps de piège xam tax mu am promoteur bi moom dund moom Mathieu mooy mbërëm te Mathieu moo koy gardé. léegi nag comme ñoom Mathieu moo leen dese woon pour Papa Boy Djiné ñëw faa ñu indi Mathieu pour ñoom ñu def association ànd daaneel alliance pour yëkkati seen bër léegi association boobu ñu yëkkati woon ñoom ñi nekkoon ci association yëpp ñoom alliance daanu leen arrangé parce que xam nañ ne bu ma daanee Mathieu si Papa laa jëm par force ñoom ci lañ créé association ànd daaneel pour yëkkati seen bër. léegi ñu daan la. ñu daan ma ma ñëwaat bëriwaat am ndam Papa Boy Djiné bu ma demoon ba bàyyi bëre ba nekkatuma ci làmb bu ñu ma wooyee pour ma bëreeg moom damay takkaat sama ngem pour bëreeg moom. daa am lu nekk ci diggante bi loo xam ne loolu rek moo ko mën a dindi moom xam na man xam naa yàlla xam na. ñi nga xamante ni dañuy seetaan ñoom comprendre wuñ te benn instant bëgg nañoo xam euh, lan moo nekk ci diggante bi parce que li nga koy tëkku dafa bari trop. Papa Boy Djiné li nekk ci diggante bi pour ma wax ko faa ñu bëre ba pare. loolu rek moo mën a tax ma génne loolu. est-ce que bu ngeen bëre woon ñaanu ma ko yàlla mu daan la est-ce que di boobaa di nga mën a génnee loolu <laughs> daan alliance. non xalaatuma ko si àdduna. man maa moom sama gëm loolu mënul nekk. Papa Boy Djiné mënul daan alliance déggoo man maa moom sama gëm-gëm loolu mënul nekk. fan nga teg loolu Papa Boy Djiné ku ne xam na ne bu sumee day indi état day wane fulla ak fayda. maa ko dàq maa gën a nekk xale maa gën a ñemelu metti. Mm-hmm. mais loolu loolu loolu kese du làmb yàq gën a nekk xale yàq dàq ba yàq gën a ñemelu mett mais est tamit ni nga yenoo combat bi ak ni nga koy dëkkee est ce que tamit doo ñëw ba ci làmb ji xaw a kii yooyu. <laughs> man bu arbitre soufflé sa tànk bi nga xam ne moom nga teg foo ko teg fa laay teg sama tànk. amoon tànk ginnaaw ay tànk kanam laa am. ñëpp ñu bàyyi ñoo ngi naan dëkk gi nga koy dëkk peut-être Ndeye Gueye ci la est ce que boo ko jëloon tamit Ndeye Gueye du jël tous les moyens def ko ci pour rek yow nga mën a téye sa gémmiñ noppi. Ndeye ba mu koy xam boobu xaw ma ne sax dina sëy papa man ngi koy fréquenté 2012. dégg muy tef soirée sénégalais jeudi du lépp lañ mën a wax nag mais ba ma koy xam xaw ma papa aw ma woon yaakaar ne sax dina sëy papa. la moo tax ngeen am ngeen séq loolu lépp ba noppi jëkkëram nga ñëw di ko teg yenn fitna yi di ko di ko di ko dëkk dëkk yu metti yi. non du question dëkk sax làmb moo ñu boole ñu war a bëre rek dañoo war a bëre mais du question dëkk waaw làmb moo ñu boole ñu war a bëre te dañuy bëre incha allah. ma nga bëre ñaar ñoo koy def man su ma nangoo te moom nanguwul duñ bëre moom su nangoo te man nanguwuma duñ bëre mais am na fu làmb di toll dañu bëre par force Bébé Bismi moo taxaw si diggante bi comme moo Bébé Bismi la man damay toog xaar. dangaa bëgg xam nga lu tax mu nekk barrage Bébé Bismi parce que comme am na combat moog Bébé Bismi bu combat bi jàllee far force dañuy bëre. mais bi nga ko dalee dëkk ak léegi est-ce que promoteur dox na sa combat yow ak moom. dox nañ suñ combat ba war ñu jox xaalis mu moom moo wootee ci promoteur bi mu may dégg promoteur bi Fallou Ndiaye la deewul mu ngi dund ñoom ñoo yàqaat combat bi ay gaayen gaayen amul gaayen da lay yéene jàmm sa gaayen dëgg da lay yéene jàmm mais ku la yéenewul jàmm du sa gaayen ku la yéenewul jàmm du sa gain mais bu ma bu ma ñëwee tuuti ci palmarès bi euh, gisoon nañ euh, Alliance Baldé amoon benn départ bu baax mais jékki-jékki Alliance Baldé bu ñëwee simeeku man mii toog yow micro bi sax dama koy ñemee Alliance Baldé du andi état Alliance Baldé da ngay ñëw daal xam ne tey moom Alliance Baldé dañoo simeeku pour daanu loolu lan la. loolu benn combat la woon parce que mu ngi nekk suma komba ak benn ak Mathia parce que combat bi dama ko jël même pas un mois combat des quinze jours ma feebar. bu ma feebaree entraîné ma nag parce que maa woon feebar am genou buy metti feebar combat bi des une semaine ma dem hôpital te du jël sama ñaari butéel ñëwaat deux jours laa ci contact mais amul solo comme jël naa avance su jàmbur te làmb ji toll na foofu te ñun ay xale lañ ma jàpp suma gëm-gëm rek war naa ko mun a daan moo tax ma dem bëre ji mais amul beneen combat boo xam ne damay simeeku ñu ne ay ci moo damay liggéey damay xam ne làmb ji moo laaj loolu. coow li signature ba neexoon na nga ñëw ne bawal bawal yéen nangam nangam expliquer détail maa ngi woon foofu toog mais nga ñëw combat bi tamit yomb. combat boobu li ci laxasu moo bari am na benn interview bu ma def ma ne am na promoteur yoo xam ne buñ ma naree tëggalati làmb ma bàyyi bëre. combat boobu li ci laxasu daa bëri est xam nga ban jour laa jot avance trois jours avant làmb ci booy bi jot na avance un mois avant làmb ci. ñu ne ma lii lañ ko fay lii lañ lay fay ñu fay ko li ma liñ ma fay man fay nañ ko ko trois fois man ñu ne ma non def ñu loolu lii lañ la fay lii lañ koy fay parce que comme ci staff yi la bokk ba pare bool booy lay liggéey ba pare mooy seen mbër loolu lañ mënoon def pour jaarale ko si yoon pour jéggi pour mu mën a daan alliance pour am tur ba ma daanee ba léegi dégguñu ko fenn de. pour alliance. am na combat am na combat. mais pour nga dégg laa wax booy bi bala nga dégg fen si turam amul alliance amul fu muy dugg te doo wax alliance mu ngi ne loolu yàlla moo koy def si doomu aadama parce que am na loo xam ne du yow yaa koy ñoddil sa bopp suñ borom moo koy def si yow. tey alliance amul dara mënul dara mais chaque jour ñu dégg ko si détail yoo xam ne yëgul tinul barki démb alliance daa dem soirée daa dem kër rangu mandi alliance daa mos a tux cigarette bay mandi mais am na loo xam ne bu ko yàlla defee si yow da nga koy nangu. mais ci ci ci ci yan base la ko nit ñi teg ba ne alliance dafa màndi est-ce que nekkul comportement bi ñu la gisee moo tax. non demoon naa soirée langu mooy loolu quatre mois la avant musuma naan sàngara comme lu ma wax rek laay waxaat soirée rangu daa am lu ma buggoon jàng moom fa yóbbu woon parce que ku jël trois cent mille duggee ko fenn nekkul da nga ñëw pour autour wala da nga ñëw pour cakaay wala da nga ñëw pour naan sàngara. loolu moom mënaguñ ko romb bi ngay dugg ñaata nga dagg nga. trois cent mille laa fay am na ñu fay cinq cent mille déggoo ma de ay kilifa ñu ngi fa woon du lépp lañ mën a wax. no léegi biir soirée bi lan moo fa am ba ba mu extra ngay fay trois cent mil pour mën a dugg foofu. non loolu duñ ci sori comme privé la woon yëfu yëfu kilifa la woon yooyu dañuy bàyyi mu la fa am moom mooy lu am feneen fi rek am mais jàngat moom fa yóbbu woon li mu bëggoon xam pour ëllëg dara mun ma bañ a jaaxal ci àdduna. mais foofu nga ko mën a jàngee. foofu laa ko mën a jàngee parce que am na yoo xam ne boo ko xasee xam kenn mun la dugal ci yenn détails mais dem naa fa mais naanu ma sàngara du ma tux cigarette sax bay naan sàngara. Hmm. gis ngeen noonu lay demee fii ci wasaare làmb euh, léegi ñu ñëwaat ñu ñëwaat tuuti parce que fan yi gis nañ dëkk bi xaw na tàng euh, làmb amul Sénégal daanaka làmb ji sax tuxu na dem Gambie noo gisee loolu. waaw làmb ji tuxu na dem Gambie parce que Sénégal comme nee nañ feebar bi bari na comme ni ko ñëpp waxee rek laa kay waxee feebar bi bari na mbas la yàlla na ko si borom jëree ñun Sénégal foofu lañ ko jàpp comme feebar bi bari na kenn mënul dox benn activité mais Gambie ñoom ñu ngi si jàmm ñu ngi bëree ñu ngi foo ñu ngi tëgg soirée ñu ngi bégee te pourtant dañ ne feebar bi fépp la nekk n'est-ce pas mais pourquoi Gambie dafa am loo xam ne ñun ñoo ko war a xalaatal suñu bopp. Gambie si Afrique la bokk te pourtant ñoom ñu ngi def lépp te doo dégg comme cas yi nu muy baree muy bari Gambie. kon am na loo xam ne war nañ ko jàngal suñu bopp quoi ñu xam ne ñun suñu réew mi ñu nekk ñun ñoo war a yeewu ñu ñoo war a xeexal suñu bopp da bañ a xeexal kenn. la moo tax tamit mu ñëw rek yomb ku ñëw rek jaar jàll. waaw parce que alliance da doon nalaw promoteur bu jug day yor benn mbërëm bu ko def jaarukaay jaar sa kaw jàll. kon daal da nga bëgg wax ne promoteur dañuy waxtaan bu kii jëlee. pa jox bas bas pa jox dafa am mbër yoo xam ne dañoo am ay nit yoo xam ne dañ leen di jëndal ticket dañuy ñëw ne la alliance laa bëgg a bëreel mën naa laa jëndal mën naa jënd kaat bloc nga jox ma alliance mais boobu alliance yeewugul léegi dañ koy woo ne ko alliance sa combat diw moom ci dëgëraay fitam day wax waaw manager musul waxaale sama combat musul manager musuma wutal combat combat yu ma bëree yëpp samay combat la maa koy doxal sama bopp mais après dem naa ba ci biir ma xam ne waaw yeewu naa parce que Jibi Ndiaye promoteur la Jibson mais dafa nekk nit koo xam ne lu mu la wax suba ba ngoon ne ko def kanji nit ku gore mu ngi noonu ci àdduna barki sëñ Bamba lu mu la wax da def mais am na ci ñoo xam ne dañuy tëgg làmb sax te duñu yor dara ñoom li ñuy yóbbu CNG rek la ñuy yor léegi nag xam nu ñuy def ticket yi la ñuy jox mbëri mbëri wër jaay ba son sonn cent bu ñu ko si lekkee sax dañ lay fayeeku cent franc boo ko ci lekkee dañ lay fayeeku sonal la nag topp la di la woo téléphone woo gu dul jeex kar kar kar sama xaalis sama xaalis am benn booy bi nekk sama saar bi ñu ko ko defee dama na ko bu la wooyee jox ma ko mu woote mu jox ma ko ma ne ko dërëm duñ la ko jox foo ñu woo ñu wuy la. parce que comme man maa fa nekk seen mag nekkuma maguma leen sax mais comme maa leen maa ëpp ay combat jiitu leen ci làmb man maay taxaw taxaw mag maa ne ko dërëm duñ la ko jox te même promoteur la. moom moom moom mu tëggoon ma même promoteur la moo tëkkaat booy bi jox xaal jox ko xaalis jox ko ay billets booy bi jaay ko lépp lekk ko parce que lam moo demee noonu taqalewaat tuuti weccet jox ko deseel ko tuuti mais li mu ko desel matul sax cinquante mille mais chaque minute mu woo ko. léegi su ma ñëwee ci combat yi nga xamante ni moo fi jot am ci diggante Ama bale ak Modou Lo nekk na combat am na combat bu mag la su ma ci ñëwee loo may wax. waaw comme comme tey nu ma ko doon imaginer ah. comme tey nga war a jël jeeg bi may ko xale bu ndaw bi. noonu laa koy imaginer Modou Lo. dégguma dégguma bu baax comme nga war a jël benn jeeg may ko alliance alliance xale la jànq la nga war a jël jeeg bu sëy ñetti yoon ñeenti yoon pour ko may alliance. dégg nga ma la Ama Baldé la la. <laughs> loolu kay yaa ko la Ama Baldé la jànq du combat fu ñu bëree mu daan ko bu ñu xeexee mu daan ko téere laa lay wax nag. fan nga teg loolu. suma ma leeree woon ni Ama Baldé di daane Modou leer na ma su ma dee tey damay dugg àjjana wóor na yàlla damay dee tey man leer na ma Ama day daan. li ma la xanaa su ma leeree woon ni muy daanee Ama Baldé ni ni di daane ni Ama di daanee ni ma leeree nii su ma leeroon tey su ma dee dem àjjana damay dee tey. est-ce que xam nga ne waa te tëdduñ benn yoon di nalaw ba xalaat Ama Baldé. waaw parce que ñoom foofu lañ toll Ama xam ko yombul ak a naqaree xam billaay lu garaaw laa lay wax ak a naqaree xam. Ama daa juddoo ci bëre yaroo ci bëre màggee ci bëre kooku bëre jaaxalu ko Baye Fall bi ndooy ndooy bu Boy Niang da doon ngénte démb quoi sama xarit bi Baye Fall bi maa lay bëggee yàlla na doom ju màgg am ndey ak baay barki sëñ Touba sama waay la sama xarit la waaw. soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. waaw comme lu mooy wax rek sénégalais yeewu leen poids yeewu leen yeew bi mooy nu ñu bàyyi di xeexal kenn. te nañu bàyyi di déglu aadama kooku jëmalewul deful dara luy jëmale réew mi kanam kooku noonu la lay indil yàq sa der ti tilimal sa der sateel defal la réputation boo xam ne fii ba say doom ba illaa yow mi diini du deñ nañu bàyyi loolu xel nañ yeewu leneen li may wax mooy di ñaan feebar bi nga xam ne moo fi nekk mu jóge fi ba gaa yëpp delluwaat ci jàmm beneen bi mooy Sonko ñun dañ lay béggee bëgg nañ la lool mais kilifa daa am bu muy génn ak heure bu muy dugg saa ma xeer nag mais kilifa daa am heure bu muy dugg ak heure bu muy génn beneen bi mooy pikin tey dafa am affaire boo xam ne naaysul muy Pape Sarr ak ñeneen man damay wax man xale laa mais damay wax mais daa war a rafet ñu rafetal ko mu rafet Pape Sarr la dëkk keneen keneen Pikine la dëkk xam nga nañ ko naayisal ñu xam ne lépp Pikine la comme lu ñu wax lépp Pikine la maanaam bu ñu xoolee am na ay ay nit yoo xam ne duñ ay mbër ay showbiz lañ mais kii da doon ànd kii kii da doon ànd ak ñoom bu ñu déggee dinaa xam mais dañoo dëngoo te ay waay lañ woon ànd nañ fu ne si àdduna mais affaire comme site internet yi rek kii wax fii kii wax fee loolu moo leen di boole. nañu xam ne ñoom ay doom Pikine lañ te bu ñu déggee ñu ne diw ak diw ñoom ànduñu wala bëggante wuñ wala ñoom ñaar dañoo def nii daa am ñoo xam ne dañuy reetaan parce que tey géejawaay gis nga nuñ mel Pikine noonu parcelle noonu nañu booloo ñu xam ne Eumeu Sène bu amee këram lay yóbbu Ama bale bu amee këram lay yóbbu boo ñaa bu amee këram lay yóbbu mais ñoom ñëpp Pikine la ñuy représenté nañu xam ne ñun ñoo moom Pikine ñoo ko maay euh, man maay mbër bu ndaw bu njëkk a war a bëre MMA Pikine. loolu de xanaa information moo moo tax ma jox la information non combat bi taxawoon na bu yàgg mais corona bi moo taxoon mais samedi passé la mu promoteur boowaat mu ne ma jàpp nañ ko mois de mars Maroc. wala ngay dem bëre MMA. MMA laa war a bëre Maroc muy bu ndaw bu njëkk a war a bëre MMA Maroc xam nga affaire bu du alliance suñu borom la. parce que ñaata mbër ñoo fi nekk ay ponkal ñu ngi fi pour ñu am combat sax problème lay doon man amul saison bu may bëriwul trois combat wala quatre mais tey xoola xamul lu ñuy wax waaye booy bi xale bu jigéen bi nekk fee rangu fii tey ñu ne Ndeye Gueye Junior gannaaw suba ñu ne damay dem si showbiz bi dama koy dund ñoom samay jigéen lañ maa leen bëgg mbaa ca sama xarit la yàlla may na ko jëkkër bu baax gaar gaaruwaale ma kenn nag moom daa daa daa daa toog ba ñu muur ko mu sey baay faal la yaay faal la borom baax la kenn la si man dafa am lu ma fi waxoon quoi ñu ne dafa am benn fecckat bu muy gaaru bu muy gaaruwaale góoru gaaruwaale man su may wax damay wax damay jaar si digg bi amul ku may ragal sama àdduna kenn rek laa mën a moom mu mën a wax dara mu metti moom muy suma yaay wala suma baaba mais ñi ci des ñëpp lu ñu wax wala. man lijjantiwuma loolu joxoo leen ma ma lekk joxoo leen ma ma naan. mais MMA bi ñu ñëw ci MMA bi MMA bi événement wu waa Pikine la war a nekk ci yoon sa diggante yow ak kan la am na adversaire. am na adversaire on la tudd naar la naar laa war a dajal parce que euh, quatre combats la bu ñu jugee foofu ku daan parce que bu fekkee yow yaa gagné Maroc da dem États-Unis mu nekk demi-finale foofu waaw. kon daal su ma déggee tournant lay nekk. kalaaf parce que mu ngi war mu ngi nekk vingt trois ans ak ah, vingt ko war a bëri daal ñoo nekk toll si vingt trois ans ah, dañoo jël Sénégal jël Maroc. ak yeneen dëkk. Euh, Sénégal Maroc Espagne états léegi États-Unis ak Espagne la Maroc ak Sénégal. kon su ma déggee wax ji combat bi sa nekkatul combat waa Pikine combat Sénégal lay nekk comme ni ñu ëmbee woon ko noonu la ñu war a ëmbee Alliance Baldé mais Alliance Baldé est pare nga pour bëgg MMA. waaw pare naa parce que doon naa ko doon naa ko entraîner. ton naa ko entraîné bu bi ñu joxee combat bi commencé woon naa fayoon naa ki ma koy entraîné lépp parce que comme lu may wax rek moo get mu ngi siy jàpp Baye bi sama papa Souleymane Ndéné Ndiaye Karamboj international Idrissa Gana Gueye Baye Fall bi man du ma zóor mais ñoom dañuy dama leen di woo ne leen dama am zóor ñu jël dàll yi rafet yónnee ma ko semaine passée moo si mujj Kara maa ngi koy siyaare grand cadre maa ngi koy siyaare bu baax chéri maman Ami Mbaye borom borom France borom GP yu gaaw yi jàmm rek ngay am suma yaay Daba Diouf kooku suma yaay la suma xarit la Amadou Camara sama rakk la kooku kenn mënu ko dindi galas di nuyu suma doom yaay Moodu xam nga Abdou Ndiaye bëggee suma waa famille yëpp suma gaale ndeysaar suma mag di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg li ci des mooy yeewu leen aaramoo këtt geen la <laughs> amul leneen man maa ko wax. gis ngeen ni lay demee ci wasaare di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon di ci sama sama cameraman bi sëñ Bass kilifa gi jaajëf.